wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain tabaarakallaahu laaj nga laaj bu solo ñun ñi nga xam ne yàlla dafa ñoo natoo ñuy wax ñu ngi askan wi am ñu ñu ciy déglu du ñëpp nag mu laaj ma ci wàllu élection yi jëm muy législatif yi lan moo ki sunu bi maanaa taxawaay ak lan mooy sunu sunu euh, wax ak orientation yi waaw réew de boo ci nekkee lépp lu war a jëmal réew mi kanam dang nga caa war a nekk di ci wax di ci jëf ndax développement bu ñëwee développement Sénégal la du nekk développement parti wala ab communauté day nekk sénégal yëpp ñoo koy bokk tabaarakallaahu yàlla defal na euh, tànn na ndax yàlla mooy tànn buur jox ko nguur ne ko nag yërmande rek laa la sant ci askan wi ndax 2024 ñaata candidat lañ am mën na 20 ak lu teg yàlla sepp ci euh, Bachir Diomaye Faye ki tànn gi nga xëy ni wala joxoñ gi ko euh, président Ousmane Sonko ko joxoñ askan wi wóolu loolu gannaaw ba ko yàlla tànnee nag ci ezel ne moom mooy nekk cinquième président kenn mënu ci dara du du at du xam-xam du dayoo du dara yàlla mooy tànn qul illahumma malikal mulki tuutil mulka man tasha macha allah nag mu gaaral sénégalais yi ah projet boo xam ne ne nii laa bëgg ñu doxalee ko ngir réew mi jëm ca kanam mën a dabi réew yi ndax dañoo tardé ndax Sénégal waroon naa passé fii bu yàgg 1960 lañ am indépendance te tubaab yi niñ tabaxee Sénégal tabaxee wuñ ko Mali tabaxee wuñ ko Burkina tabaxee ko feneen Kaolack rek xoolal tabax yi macha allah waaye a ah, njiit yoo xam ne xëy na seen vision soriwul lool manque volonté politique lu bëree bari ak ñàkk jiital seen bopp ñàkk ñàkk nguuru yi nga xam ne la ñu waroon a sànni ca gannaaw jiital intérêt askan wi ak développement Sénégal. Corée ñun ñuy am indépendance réew mi mel ni mel Corée boobaa mu dara Japon xoolal bañ leen dóoree atomique bi xool Chine kon macha allah ñoom nag bañ indee projet bi ne nag pour ñu mën ko doxal mën a atte loi yi ndax loi yi assemblée moo koy atte foofu ñu am majorité pour mën a doxal loolu ñu laaj askan yi majorité kon li ma jàpp man pour euh, nit bu dee def na ne dama laa bëgg a liggéeyal tool baa ngi wuruujaguñ ko jox ko rato bu ruuj jox ko almet gum lakkee li nga xam ne moo ñax meeg euh, lim gajji waaye bu tawee jox machine ak jiw yum jiyee bu saxee jox ko euh, outil yum bayee kon dafa mel ni assemblée mooy outil boo xam ne bu ko président amu du liggéey rawatina Afrique kon askan wi nañ leen jox majorité ko defee teg seen bët di leen contrôler ndax Sénégal moom yëgal naa leen nguuru jeex na fi déedéet loolu moom askan wi rek lañ nañ ko seen bopp ku fi ñëw buñ la yëkkati woon ba ca kaw ngay doof dooflu bañ a topp soxlaay askan wi di nguuru la nga waxoon ni nga dindi seen mel ni du yow gars yi moom miin nañ mi miin nañ sànni xeer miin nañ manifestation te miin nañ joxe seen bakkan kon nañ leen jox majorité ko defee tabaarakallaahu ñaanal leen yàlla loolee ndax mébét yàlla mooy sottal loole nga xam ne nii ah loole nga xam ne moom la askan wi yaakaar ba nga xam ne kenn du jëlati gaal di ko te ci océan bi naan maa ngi dem Europe kenn du awati ci yooni ni korokowa bii di jaar ci ay danger pour lan loo lekk loo naan loo sol ak foo war boobaa nga xam ne lépp day am ci réew mi ndax réew mi nag yàlla deseelu ñu dara Seydi Lamine Redwan waxoon na ko réew mi am na lépp njiit lañ manqué te yaakaar nañ ne njiit yi ñu fal a ah, njiit yi ko matee la ndax koo xam ne jiital na ki gestion ragal yàlla ne lii dana rendre compte ci kanamu yàlla peuple bi taxaw hey loolu yombul loolu ku ko yàlla jox bu leen la joxoon majorité jox ko ndax boobaa yow sa responsabilité dégagé nga ko moom responsabilité moo taxaw ci kanamu boroomam bu ko defee ñu mën a liggéey réew mi ba réew mi développé surtout nag pôle yi nga xëy moom lañ def ne pôle yi ndax déglu nañ discours yi tabaarakallaahu région bu nekk la fa am nañ ko génnee waa région ba toog liggéey ko boo waraa réew mi dana développé ak autorail yi ñu wax ak macha allah te mbay mi napp gi sàmm mi buñ ko jiitalee ak ay usines yoo xëy ñooy industrie yi lépp lu ñu bàyyi man kaa transformé waaye waaye fu ñu jëm Europe noonu lañ def ba développé Amérique noonu lañ def Chine noon lañ def loolu rek la te réew mi eh, am na jàmm te jàmm mooy base lépp am na réew yoo xam ña ngay guerre waaye ñi ngay développé waaye fii am na am na jàmm te mënuñoo développé kon il faut nañ delluwaat xel bu ko defee te ñaanal leen yàlla ñu réussir ndax euh, macha allah. liste bii ñu teg mbooleem koo xawee yaa ngi ci réew mi rek gis nga sa bopp handicapé yeeg silmaxa yeeg surtout ñu ndongal daara yi ndax dañ ndongal daara yi dañoo xeex ci projet bi xeex bu métti ndax ndongal daara yi dañu leen beroon stigmatisé lañ leen di wax ne bokku leen ci doxalin yi jàngu leen tubaab yéen illettré ngeen ah président Ousmane ñëw ne si ngeen bokk ci réew mi moo tax ndongal daare yi jël projet bi def ko muy seen projet ñu porté ko di ci ñaan yàlla di ci wàccee kaamil man mii li ma ci wàccee si kaamil 2021 chaque jour naa wàccee kaamil ak ñeent fukki yaasin ak benn depuis 2021 ak léegi ba léegi bàyyiwu ma maa ngi leen di ñaan moog jomaay kenn du mën a dox seen diggante ndax duyoo bii duyoo la boo boo amee rek ay bii am te ñun ku ñu di walal lañ bëgg ñun loolu lañ bëgg ah, ah ku développé rek lañ bëgg réew mi santu Sonko santu fay lim sant mooy sénégalais Sénégal sénégalais développement bi sénégalais ñoo koy ñoo koy jëriñoo kon nag bu kenn ñaan ñu échec buñ échecgee rek ñëpp ko yëg nañ ñaan ñu réussir te jug rek jàppale leen surtout ndaw yi mag ñi nag am xel ak xalaat yu rafet yi lañ ko jox waaye ndaw yi jug nag porter liggéey bi te futteeku jéem a changé waaye bu dee askan wi niñ bëggoon niñ doon dundee ci tappale ci toog muy dox ci njuñ njaaj ci dóor noonu lañ bëgg muy continuer buñ fi indi woon xolal maawa sutum sax réew mi dem fen waaw ndax kenn wala ñaar wala gouvernement mënuñ dara kon waaye nag maa ngi ciy oote ñu dem ci jàmm waaw le 17 mu sedd guy comme na eh, eh, eh, élection 2024 yi présidentielle yi seddee woon ba dam ba dammul almet tàkkul ñu dem ci jàmm tabaarakallaahu ñi nga xam ne ñooy campagne ñu campagne ko ci jàmm moytu nag wax yi ñaaw yi moytu saagante bi xastante bi di wax programme di wax idée di def débat idée bàyyi par par parloo journaliste yi bàyyi di jaay seen pilim yi ñu leen xasoo koo xaye ni waroo kaa xas di bind ala in ci koo xaye gor la yooyu yëpp réseaux sociaux yi ah yooyu bu ko defee bu ñu ko defee wallahi ñun ñëpp ànd ndoor yàlla dañu yërëm te doole Amérique ci la jëlee nekk première puissance du monde mooy booloo rek am doole yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko wax yadullahi ma aljamaa ne aljamaatu rahma wal furqatu azab kon sénégalais yëpp nañ man koo jàppoo dégg nga maam nekk ci diin lislaam ñu nekk ci diin lislaam euh, euh, région yëpp journalistes yi sàmmkat yi nappkat yi baykat yi jàngalekat yi tabarakallahu ñu nekk santé bi ah ñëpp buñ booloo tabarakallahu bu ñuy tegee acte boo xam positif lu ñëpp nañ ànd ak ñoom bu dee dañoo wàcc yoon yi ñu jubbanti leen waaye keer ak ci teggin lii daal mooy sama mm, lancé message bi nga xam moom laa doon wax di leen gërëm bu baax di leen sant wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu